bu ñuy wax lu jëm ci càmm gi dafa weesu tabaski donte nag tabaski la ñuy def seen chiffre d'affaires bu gën a bëri seen opération yu gën a bëri ci li jàpp en cas ci diir bu gàtt gàtt waaye sénégalais bis bu ne dañuy consommer lu jëm ci ndawal dañuy consommer euh, meew dañuy soxla ay dër ñu ne li gouvernement bi bëgg weesu na loolu bëgg nañu ci wàllum li ñu soxla ci événement yu mel ni muy tabaski korité màggal gàmmu popongin lël yi am ak yeneen ak yeneen bëgg nañu fexe ba dootuñu jéggaani lañu soxla te loolu defe naa baax na ci koom réew mi baax na ci social réew mi ci bépp fànn baax na sax ci sécurité réew mi huit cent mille wala huit cent dix mille euh, xar yi ñu soxla ne moom suñ ko amee couvrir na marché bi bëgg nañu fii ak ñaari at ñu ne biir Sénégal rek am nañ fi lu ëpp un million wala deux million un million cinq cent wu xar yoo xam ne fii la jóge bu boobaa nag dinañu commencé jege wala matal li ñuy woowe souveraineté alimentaire mooy nga mënal sa bopp kon lii buñ ko réaliser dinañ jege souveraineté wala dañ ko commencé te ñaan naa yàlla nag yéen ñii di acteurs yi nekk ci càmm gi ngeen doon ñu njëkk nag wane souveraineté Sénégal ngeen di jiitu ci ñépp ANSD wane na ni tey boo demoon ci marché bi diggante 2014 ak tey jii nga xam ne fukki at la ci fukki at yooyu yàpp euh, lu jëm ci ndawal yokku na ci anam goo xam ne man damay toog ne xam naa bari na ay ménage sénégalais yoo xam ne bu ñu bu ñu cofee tey ci ci ndawal boo moytul balaa ñu ci cofaat dina yàgg parce que seer na su la nee yàpp bi yàpp euh, xar jóge na ci deux mille en deux mille quatorze ñëw ci quatre mille trois cent trente huit francs ci jamono ji ñuy wax mooy yokk na lu toll mille cinq cent cinquante six francs soo jëlee ndawalu nag bi moom it jóge na ci deux mille cent dix neuf dem ci trois mille sept cent mooy yokk na lu mat mille quatre cent soixante et un francs soobee yàlla nag dina wàññiku dinañ ci waxtaan ak sénégalais ci fan yi ndax lañ ciy liggéey liggéey nañ ko waaye wàññiku bi dafa ànd ak lu bëri fileeg yow la ngay soxla la ca ëpp yaa ngi koy jéggaane ci biti amoo marge pour naan maa ngi wàññi dund solution yi ñu war nag solution yu la moo tax ci programme bi ñu indi bi nga xam ne moo fal son excellence le président Bassirou ay Faye dañ leen ne lañ ci war a def ci dajale lu war a financer activités yi dinañ ko def ba mu mat sëkk banque yi fi nekk yëpp muy euh, banque agricole muy BN BNDE euh, ba ci institution microfinance yi ak yeneen ak yeneen am na ci yoo xam ne amaana dinañ leen dajale sax ngir gën a am doole ci suñu programme dégg ngeen ñu dañu bëgg am benn banque nationale de développement bu am doole jox nañ suñu bopp ab mandat wu cinq la ñu am waaye bu ñu doxalee ñaari at Sénégalais dinañ gis jeexital li ñuy liggéey